bu fekkee ni Antoine bi pare na rek ñu dem Saint-Louis te dellu si léeg-léeg dafay am ñuy gaawantu bu mbir amee rek ñu tàmbalee wax wala bu mbir amee ñu ni dégg naa wala foog naa wala xalaat naa wala yaakaar naa nit mënul waxee ci lu muy foog wala li muy njort surtout bu fekkente ni dafa nekk un sujet aussi sérieux ba bakkenu doomu aadama wala wér-gi-yaramu doomu aadama bala ngay addu ci dara dangay fexe ba am ci lu la leer même ñun état bu ñuy wax ci dara li ñu ci leeragul la ñuy wax mais li nga ci leeragul da ngay am mandute bàyyi ba gëstu yi wëy ba yegg fi mu war a yegg nga door a joxe loo xamante ne lu leer la fi ñu toll nii li ci mën a wax mooy am na juróom-ñetti nit yu ci ñàkk seen bakken ñu ngi leen di euh, jaalewaat seen ay njaboot am ñeenti nit yoo xamante ni am nañ ci ay gaañu-gaañu li ci des enquête bi dina ko révéler may profité aussi ci loolu pour terminer wax ci luy euh, fan yi nekk ci euh, presse bi ak ci réseaux sociaux yi muy ay nit yu ñuy wax ni dañu génn àdduna seen bakken dafa rot euh, fële ci euh, diggante Espagne ak boori ma may wax ni loolu tamit damay wax nit yi ñu tey ci nit munul wax lu ko leerul nit munul wax lu ko wóorul fi may waxee ak yéen nii am na ñaari téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn yoo xam ni ñi ngi ci benn centre bu nekk Maroc boo xam ne ministre des affaires étrangères matuwaay yi ci war a am yëpp ak suñu consul général ba nekk ca Dakhla jël na ko ngir indiwaat leen Sénégal c'est pas parce que gisoo nit wala c'est pas amoo moom information da wax ni faatu na wala nga wax ni am na ay nit yu faatu bala ngay addu ci mbir da ngay ñëw nga laaj ñi nga war a laaj ñoo ñit jug joxe ci xibaar bi ñu ci war a joxe mais am na deux cent soixante seize personnes yoo xamante ni ñi ngi ci jàmm qui sa porte très bien yu nekk ci benn centre bu nekk fële ca Dakhla te ministre des affaires étrangères mi ngi liggéey ak autorité marocaine yi waaye ak autorité mauritanienne yi pour indi leen fii Sénégal Assane Antoine dem na seeti ñi loru ji ci ab doxantu bi mu demee nag yëkkati na fa ay kàddu wax na ci bakkan fa faatoog ña fa des wax ni daal réew mi amul problème mu xaalis ndax ña fay dem dañuy dépenser xaalis bari ngir tukki amuñu problème at emploi muy ab liggéey bu ñu mën a joxe. Hmm. waaw Antoine loolu mu def noonu dañ koy rafetlu ndax gis nañu ni ñëpp ñoo xamante ni am nañu ay problème moom mu sol aw dàllam ànd ak gouverneur ak ña sa topp daal dem seeti leen noonu lañ koy ñaanale mu gën di yaatal loolu fépp fu mu dégg ni problème am na fa ak fu mu mën a doon mu sol dàllam dem fa. ak fu mu mën a doon rek ñu ngi koy ñaan mu gën see yokk ay jéego beneen bi nag problème mu liggéey moom am na ci réew mi moom problème mu liggéey du ma tàyyi mukk di ko wax ministre de la jeunesse na xool jeunesse bi wala muy dem si kii daa war a sol aw daalam di dem si société yi di xool naka la ñuy liggéey ak seeni emploi naka la ñuy jëlee yan document lañ lay laaj ndax ndax ndax ndax jéem see xam dara mais toog fi mu toog rek loolu indiwut lu naa leer lu bari ndax tey jii wax naa ko solution laa mas a gisee man nit ku ñëw ni damaa bëgg a liggéey wax ak son bu son bi daal di koy jël te néewu ko diwuñu boole néewu ko diwuñu boole fii nag compétence la ñu voilà léegi nag te yow bawal bawal nga xam nga bawal bawal boo xam ne mi ngi jël di jël ci nit ki naa kii kat ginnaaw mën na lii dama koy jël mais intellectuel da nga ñëw ñu ne kan moo la booleeg yow sab gel sab gel moo naan la sama doomu bàjjan bi sab gel a lay booleeg ñu ci bëri bëri bëri boo fi ngay liggéeyee ku la booleeg nga ne sama sama rakku gel wala sama xaritu gel moo ñu boolee mu jël ay gel ak sama xarit ak kii doomu mbaajam loolu wala madam waaw hmm. te nga gis ñu yor ay diplôme dàq liggéey bi xamoo leen waaye indi nañ diplôme yi li ñu man leer na mais kenn boole la woon moom doo ko jël hmm. loolu lépp ministre bee si war a jóg kon li mu liggéey dafa am ci réew mi léegi nag nit ñu jaaxle bu ñu jaaxle amuñu xaalis munuñoo liggéey am ay coono moo tax ñuy mbëkk di dem si gaal gi nañ leen wutal liggéey fexe société yi di leen jël ci lu leer waaw boo jógee ci loolu est-ce que doo fàttalee ministre bi ak état bi ñu yombalit borom entreprise yi yoon yi parce que Assane ñaata entreprise ñoo fi tëj. Mhm. ci ñetti at ñaari at yi bari na. Mhm. te bu ñu xoolee ba ci biir loxol état jógu ci mooy loxol état jógu ci man maanaam jàppalewu leen pour entreprise yi mën a soqaliku. non loolu état est-ce loolu doo ci wax. loolu état la état bi da gis kuy ñot ñoti. Hmm. di ñot ñot di ñot ñoti ba teg table sax exemple ñu ñëw bule la yàgg sa table. Ah, exactement wutal fenn nga gis ay mécaniciens nekk si benn roq ñu ñëw bule leen te roq ba ay kàmb lay doon kàmb yi nii. man nekkoon naa fa. Mhm. ay pax la booy dugg dangay ngay fexe ba juutu di juutu di juutu ba dugg fii si ginnaaw stade Léopold. ay kamb ay kamb la woon bala nga saa dugg da ngay am problème. yow loo fa doon def ci kamb liggéey rek. man moom fu ñu dem naa yi lu ñu fa doon liggéey. kamb yi da nga ñëw nga fexe ba def sa place. ah léegi nag foofu dangay defar sa wut sa kara quatre francs fay xaalis. defar ba mu rafet ñu ñëw yëkkati la ni la fi état ko moom da koo oh soxla. te buñ dañ lay gis duñu sa wax dara. Mhm. ndeysaan duñ la wax dara fi mu ne nii yow tey ji boo demoon fi gis ay camp wala fenn boo koy maasale duñ la wax dara da ngay fay sa xaalis di fay ay oto ñu ñëw di la wàccee suuf nga defar ba mu rafet ah. nga def sa place tàmbalee liggéey eh, eh, kii bi mairie bi ñëw ngay fay mairie di def lépp mais da jekk-jekk ñu yëkkati la te duñ fa def dara kon ñi ki ñi ñot ñoti ba am lu ñu liggéey bala nga leen a yëkkati na nga leen dooleel kii xam am na société bala ngaa jéem dara si ab société am di dammi tànkam na ko dooleel ndax dafa jël ay ndaw moo gën ngay dammi tànkam te saytu ba xam ma ngay fay ndaw ñaam fayut ndaw ña d'accord Paala Amar nee na nga bàyyi bawol bawol yi. bawol bawol yi mënu ma leen a bàyyi ndax maa seen ambassadeur. <laughs> d' accord ñoo ngi nuyu sëriñ Gana Messere Maxtaar suñu xel nekk ci moom xam nga fu safar gi jub rek suñu xel yi dafay nekk ci moom. Mm-hmm. Alhaji. Mm-hmm. noo gisee kàddu yi Antoine ginnaaw bi mu seeti jee ñi loru ak ñi faatu foofu la ci Saint-Louis. waaw Antoine de mooy ministre de l' intérieur eh, bari lool lu mu xam eh, buy yëkkati ay kàddu. di xamal nit ñi tamit nit ñi dañ koy xaar mu xamal ñu loo xamante ni bii li xew lan la ci xam mm-hmm. ah ci biir waxam nag nee na ñiy dem du problème mu liggéeye leen yóbbu déedéet parce que dañuy fay mm-hmm. xaalis ngir dem mm-hmm. waaye daf ñoo waroon a wax kon lan moo leen yóbbu waaw ñiy dem parce que kiy jaar ci géej gi moom demul pour touriste demul pour touriste jaar ci géej gi risque pour ñàkk sa bakkan demul dem di noosi tourisme moom demoo pour noosi demoo pour kii léegi nag moom daf ñoo war a wax ñooñu kon lan moo tax ñuy dem hmm. loolu mooy ginnaaw bi mu ñu waxee ne lii taxut ah. nañu wax li tax kon ci topp na ko wax lan moo ndax lan moo dal xale yi léegi ba buggutuñoo tool ci réew mi eh, génn ko gënal leen maanaam. Mm. Euh, ñu faatu ci yoon bi sax gënal leen bañ naan Barça wala Barsax gënal leen toog ci réew mi. Mm. léegi moom loolu war nañoo wax lu tax. Mm. Euh, te Antoine dafa am tamit lenn loo xam ne dafa mel ni xamu ko. que ni réew mi dafa metti méttiwaay boo xam ni. di nga gis koo xamante ni kii tey. waaw ab nat. Mm-hmm. la teggi daal dee dem nga gis nit koo xamante ni da doon am ambulant dajale benn somme. boo xam ne laataan mu koy dajale lim ci daj ngir dajale ko kenn mënu laa xam kii mu gis gaal daal di ceey wut ci dem maanaam amuñu espoir ci réew mi tamit maanaam bu ñu fi yaakaaroon liggéey ni xale yi dañuy liggéey rek demuñu ngir lenn. Mm-hmm. dañu dem pour liggéey. Mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ni mooy li tax. te seen réew gisuñu fi liggéey am na yu asan indi yoo xamante ni. Mm-hmm. Euh, fi mu yaa ngi nii di cat cat dëkk bi da ngay gis boo yu bari ñu ngi jéem a góorgóorlu ab moto di cat si mais ñaata yoon ngay dégg ñu ne cag-cag yi taxaw leen bu leen taw mm-hmm. waaw maanaam booy même bu ñu débrouillé ba créer métier sax mm-hmm. boo xamante ne bi ñi ngi ci régler dara mm-hmm. euh, chaque jour yatu état mi ngi dal ci seen kaw ba loolu pour ñu mën ko def manifestation bi sax ma fàttali la tey ji jàpp ñi leen jàpp taliet ñu ngi koy ñaawlu maanaam da ngay liggéey ba ngoon gars yi tali bi séddoo koog yow voilà tey ji mën nga ñëw yaa ngi gis fii ci kiiwu rond-point Liberté 6 bi xam nga ni ñàkkee ñëpp xam nañ ñi jaaduwul même ñoom ñi fa nekk xam nañ ñi jaaduwul. jaay mais waaw même ñoom ñi fa nekk xam nañ ñi lii jaaduwul. Mhm. mais ci jamono jii nga leen war a wutal rek leen leen fu ñu war a mhm. mais dinañ bàyyi ba benn jour rek ñu jël leen rek ñoom ñëpp dégager leen ne leen jóge leen fii maanaam dañ leen fiy jëlee te duñ leen wutal fenn fu ñu dem maanaam plan B duñ ko faral di am mhm. boo xoolee say ndaw xam ni kat ñu ci ëpp li seen kii mooy ñaq daan seen doole. parce que ñi ngi créer ay place ci mbedd yi di def lu ne. lépp mais ñi ngi bëgg am xaalis boo xamante bi xaalis bu lucide la xaalis bu jaar yoon la. Mm-hmm. malgré que ni yow bu fekkee ne da nga ne lii ñuy def du yoon. Mm-hmm. mais d'accord du yoon mais fexe koo yoonal fexe la xam noo ko kii parce que ñoom dañuy toog fii bu leen fi juuti fekkee dañuy fay takk taxe mhm. dañuy fay juuti dañuy fay kii donc ñu ngi contribuer jàpp nañ ñu ngi contribuer ci peu bi nga xamante ne bi moom lañ yor mhm. mais ñu ngi ciy def li nga xamante ne bi moo leen warloog seen réew mhm. encadrer loolu xool noo koy defee loolu moo tax ñoom ñu teg leen fi ay solution lañ leen di laaj mais bu fekkente ni bi tey yow euh, fu ñu dem ay nit faatu ñàkk seen bakkan nga ñëw ne maa ngi naqarlu maa ngi jaal yamal foofu waaye naan waaw waaye nag dëkk bi moom lii taxut am nañ xaalis donc jaal ga sax yaa ngi koy bëgg yàq waaw parce que problème ci biir njaal dañ naan ku pa ku paas quatre cent mille dem Europe ku paas quatre cent mille nit ñi dañuy teg ay natt nit ñi ñii seen yaay yi leen ko jox am na dañ leen yónni ñu daw lu ne am na <laughs> nga daal ah, euh, pour bëgg cee génn yooyu yëpp daf cee am mm-hmm. donc xaalis boobu ñuy paas bu mu tax nga ne lii lii Euh, xaalis bi bari na te ñoom xaalis boobu ñu gas gas xaalis boobu lan la mën fii bon ay quatre cent mille ay hmm. kii xam nga yoo xamante ni bi moom la ñuy paas pour jéem a kii tey la seen live hmm. euh, yooyu yëpp ñuy jël yenn risques yi problème bi hmm. du xale yi problème bi ñi ñi jiite lañ c'est que bu ñu tuxal problème bi quoi problème bi ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi ñooñ ñooy problème bi parce que dañ leen a fal pour lii di ay jafe-jafe ñoom ñu rek régler ko buñ ñëw nag naan ñu problème bi du lii maanaam parce que léegi ñoom nañ wax ñan lañ jox liggéey. waaw waaw dëgg la dañ ñu wax nañu ñii ak jox nañ leen liggéey. ndax nañ ñu wax nañu ñu jox liggéey ki yow fii nga gis ñoo xamante ne bi sax ay fonctionnaire lañ dootuñu ci mën a génn dugg gaal ki dem. Mm-hmm. c'est parce que la muy gañee mënatu cee dund. Mm-hmm. si que niveau de vie wu Sénégal dafa metti son yu. Mm-hmm. ni nit ñi di dundee Sénégal ngay gis nit kuy fayeeku deux cent cinquante mille. ñu ne ko. appartement bi mu luyee mu cee fay deux cent mille courant ñëwagul ndox ñëwagul jàng xale yi ñëwagul. Mm. donc kooku leneen lu mu def yaa ko def loo. mais yaa ngi may fàttali bi sax fan la loi bi toll. Ah, loi bi ko laa si gëj a xam ah? ma ne bañ ko jëlee teg ko waa ji. Ah, si mais Sénégal nag Sénégal war ñoo xoolaat seen ay loi de. waa ji si yoonam nekkatu si. kan la location ko dénk. Momar waaw boobu la si gëj a wax. ku si jaaxle wooteel. numéro yaa ngi numéro weer. affaire bi amul suivi de ah. Momar mm. waat na leen ci benn numéro xaw ma nag ñu cee réglé kii fi mu toll nii Mamar boo ko fi woowaatee dina la fi tegal ab liste ne la na nangami kaa. yoo xamante ne ah. non man kay Mamar damaa bëgg Mamar day fexe ba créé benn système boo xamante ne bi non Mamar il faut ñëw. non Mamar bu ñëwee bu la waxee nga ne non kii ndekete ci liggéey rek la xëy. te xam nga doo gis kenn ku ñu réglé kaawam. yow mii boo ci dëkkoon di woote day ci woote wut say preuve. numéro bi jàpp nga ko. jàpp moo ko def moo ko jàpp. waaw xam naa mbokk yi ku ci xam numéro bi rek boo ma ko defee ci commentaire yi ñun après ñu woote ci. Hmm. parce que ñun fii Liberté 6 ak ñi fi dëkk man li may jot ci ay cas ñu ni ba léegi kenn wàññeegul Castor euh, ak euh, cité yooyu. Hmm. vraiment. man de wax dëgg yàlla am na ku ma doon laaj te waaye fukki junneeg ñett la ñuy wax néeg bu am saal de beel fukki junneeg juróom benn néeg. benn néeg benn néeg fukki oh, junneeg ñett nga xam ne appartement la doon doon. waaw loo xam ne appartement la daan doon léegi par benn néeg la soo waxee ne ay trente mille ñun laa ah dem Berlin ba xam xoolal li ñu def si bopp ni dem Berlin ba xam trente mille.